lu la def nañ ko wër nañ dem ci kër serigne su bëri ne waji waa benn musiba la bo xamne benn terroriste bo xamne bis bu ngeen ko joxe rew mi gamu dootu fi am magal dootu fi am ak leneen ak leneen waye tay ji may delo ñukal suñu kilifa diine ñom ñëpp xam nañ ni leen doon wax yépp dara amu ci daphne ñu naan waa ji bu toogee nee nañ màggal du fi am ba gàmm du fi am ak yooyu ñu dagg màggal du fi am gàmm du fi am ñu ne Sonko bëggul kilifa diine yi mooy wala yajrimannakum shana'aanu qawmin ala allah tahdilu wala yajrimannakum shana'aanu qawmin ala an la ta'dilu wala yajrimannakum shana'aanu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrab lit taqwa bañ nit bu mu tax nga jalgati jël àqam joxe ko wala nga bañ koy jox dëggam donte neexu la wala donte àndul ak yow wa hmm. xaw min imam donte àndul ak koo xamante ne bokk leen ay gis-gis bokk leen gis-gis loolu warul impacté warul impacté bu fekkee am na dëgg yow juge bi nga jox ko dëgg yow maanaam sa décision sa décision maanaam sa relation personnelle warul impacté oui léegi warul impacté yow yow yow da ngay atte ci dëgg rek la loi c'est la loi la loi c'est mi koy atte da nga koy joxe parce que loi la mais kii yaa ànd ak man kii yaa àndul ak man imam affaire caaxaan yooyu ku ànd man ma raay ku ànd ak man ma imam loolu mooy lan

amna gis na ko def conférence presse lan la wax dane booy xalé yi dañ doon manifesté wu ba ci biir jumaa sa dañ ko doon taal. mu jëli ay nit ci bit ñu ñew meeting ci biir jumaa ñu koy ñaawlu yemuñu ci lool ñu taal ay pom ci biir jumaa ci lool ñu taal ay pom ci biir jumaa ci lool ñu taal ay pom ci biir jumaa. yow loolu tuutaloo so godee waye ñi nekk ci biir jumaa ji yor jumaa ngay tutal yow xolal wax ju salde jooju wax ñaaw jooju. Mhm. waaw te pourtant lool yëpp du dëgg. imaginer bañ nit rek nga koy tumal yenn kaddu yo xamna xam nga ne di du dëgg bañ nit rek ak Touba ni mu toll bañ nit rek war a tax ngay wax kàddu yoo xam ne yow kàddu yi ngay yëkkati wax moo ne dëgg nak ne da ngay fen waaye bëgg nit ñi bàyyi nit moo nga di def waaye nag yàlla kum sàmm kenn mënta fexe ba doo am ndam gis nga ko yàlla gemb kenn mënu ci moom dara in yansurkumullahu bu fala lakum kenn mu ku kenn Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours وعلى الله يلا فليتوكل نويرو فليتوكل المؤمنون نيغم يلا نيويرو يلا C'est à Allah que les croyants doivent faire confiance. يلا كمو تيل بوبام كين نو مونتا فخه با دو موتاخ نا جابو سي جابو يلا كي سونكو نا دويلو يلا نا وولو يلا نا باي ليپم سونو بون سبحانه وتعالى كمان يلا رك لا موم رك لا nit la jam la matadi dina comme kenn ku nek ci ñun waye yalla rek la gëm ma kok len ma kok len lu am rek moma lu am rek damay delu ne ko sant na la neex na naqarina dana muñ nga xamne jambar deug bu amé jafé jafé ci lañuy xamné jambar la ak lu mu metti metti rek nga xamne suñu borom du ko nga xamne yalla mu ngi and ak mom te moom mi ko sàmm ba mu àgsi fii moo koy sàmm ba mu àgg fa mu war a egg bu dee da cee war a jot ku yàlla bind mënta fexe ba du ci jot bu dee wuri ca jot du ci jot bu dee wërta faatu ci lii ku yàlla bind mënta tax ba mu faatu ci kon na doyloo yàlla na wóolu yàlla na kennal yàlla na bàyyi lépp suñu borom subhaanahu wa la xam ne yàlla ku mu bëgg a sàmm rek dina la sàmm sant naa bu baax